wajalilaayi maskani Tuubaa baat misras mi abijaayi xayri man abaat bokki jullit bokki taalibe yi asalaamaaleykum noo ngi leen di nuyu bu baax di leen ndokkeel te di leen ziar mbokk yi Tuubaa ca kanam dellusiwaat na ci seen xalaat yu rafet yu mucc ayib yi Tuubaa ci kanam dellusiwaat na ci yërmande gu yaatu gi tubaa ci kanam dellusiwaat na ngir yéene ñëpp jàmm mbokk yi xam ngeen ni ñu ngi wajal tabaski kenn ku nekk yaangi dang-dangi di xalaat xar ak namu tollu kenn ku nekk yaangi ngi xalaat ana ban ñaw ngay ñaw lu ren ban pis ngay jënd ndax xam ngeen ne am na ñoo xam ne seen xel sax nekkul ci loolu ñooñu nag le Touba ca kanam jóg ci at yi ñu weesu di leen fàttaliku ci waxtu wu nekk kenn ku ci nekk yaa ngi sa mu fess del ki yere yo xamne ni di nga tok at doo ko wubbi doo ko xool mi gennal def ni wa Touba ca kanam xol len li ay yere yu yes tak amna ci sax ño xamne dañ ci bolé wala ay dal te kenn ku nek xam nga ne yor nga ci sa gal lo xamne meun nga ca sedd ka nga dendal ak ka nek ci wet kon ngalla mbok yi nañu roy Touba ca kanam ci fépp fu ñu mën a nekk waa Touba def li de zigen nañu def li wa Tamba waa Koungheul waa maatam waa Podor réew mi yëpp lay wax te bu kenn jàpp ne lii jomb na la mbokk yi man jàpp naa ne kilifa diine kilifa aada yi ñëpp rek war nañoo bàyyi xel ci ne mbokk mi kañ nga gëj sol sa grand boobu bu weex boobu waa soxna si kañ nga gëj a sol sa basin bii nga xam ne ba nga koy xotti jaraloon na lu nekk ñaata nga ci am ci sa gaal tey ndax xam nga ne am na koo xam ne nii xalaatul sax ne dina àddina dina dox ba mu am yére bu mel noonu waaw lu tax doo génne gaal gi gaal gi féex nga féexal keneen loolu rek la Touba ca kanam di digle bokk yi lépp ñëpp lenn ku ne nga ca biir na kenn ku nekk bàyyi xel sa digganteeg sa borom li la sunu borom defal muy président de la république muy première daam muy premier ministre muy ministre yi muy député yi muy kilifa diine yi. kilifa aada yi sëriñ si nañu dem ci gaal yi génne ko dimbali ñi nga xam ne seen xel du daj mukk ci jóg xotti waxuma la nag di xalaat xar wala di xalaat ñawlu wala di xalaat leneen kon lii daal initiative bu rafet la te jàpp naa ne réew mi yëpp war nañ cee roy ndax kat lii ngeen di gis nii fu ne la bàyyeekoo te it nag nit ñi ay yére yu ñu mën a sol di dem ci barab la ñu joxe ndax loolu moo xew léegi loolu la Touba ci kanam di woote yére bi nga xam ne ku la ko jox doo ko sol bu ko indi waaye nit ñi dégg nañ loolu de façon yëre bu nekk ngi fi ay dàll ngi fi mag góor jigéen ndaw lépp rekk ci bàyyi xel ki nga xam ne moom xalaatu xotti sax bay ñawlu jërëjëf sëriñ Touba wajalilaayi maskani Touba baat misras mi abijaayi xayri ma nabaat